Touba war na am gaaru routière bu moderne gare routière bu mucc ayib bu yaatu bu fees boo xam ne transport bi daf fiy développé bu baax a baax comme président joxoon nañu ndigal nag ne nañ moderniser gare routière man dama bëgg première gare routière bi nga xam ne waxtaan naa ci ak AGETIP ba ñu jox ñu maquette bi te mu war a nekk ci lu tolloog cinq hectares naa ci waxtaan ak sëñ bi waxtaan ci ak sëñ Bas waxtaan ci ak maire ñu mun koo am parce que gaaru ceer warul nekk ci biir dëkk gaaru ceer ak aéroport ak aérogare waruñu nekk ci biir dëkk parce que dañuy xatal dëkk te gis nañu déjà bi ñuy ñëw kaar yi ngi wàcc nit ñu fa sori ñuy dox di ñëw loolu nag bu transport intérieur bi baaxee ñu am gaaru routière bu nekk a un deux kilomètres defar ko defar bu mucc ayib boobaa dem beeg dikk bi dina am jàppandal te xataay bi dinañ ko dinañ ko mën a moytu moo tax gare routière yooyu ñu ci waxtaanee dañu ne dañu koy ñuy njëkk a def biir Touba lañ ko bëgg a def daf fi pose première pierre buñ ci amee seen digal dañ fi ñëwaat nag waxtaan ci ak regroupement bi wan la maquette bi ànd fi ak AGETIP wan la ànd fi ak ñi koy defar nga xam ne boo leen ko gisee ba jàpp ne lii lu baax la ci dëkk bi dañ joxe ci digal ñu tàmbaleen bi ñun daal li ñuy jot mooy lépp loo xam ne gouvernement mu ngi koy liggéey na ci Touba gis boppam bu baax a baax digal loolu nag fekk na ñun ñëpp nag ñu sawar ci moo tax bu màggal di jot gouvernement bi yitte yëpp mooy xool nan la ñuy def nekkuwaayu askan bi mën a nekk nekkuwaay jàppal ci wàllu woowu it andi nañu fii ay masque toll ci vingt cinq mille masques ak ay gel pour jàppale leen ko ci xew-xew bii nga xam ne sëñ Mountakha Mountakha joxe na si ndigal mooy kuy ñëw ak foo mënti dem na nga na nga def sa masque ndax aaru aar sa bopp aar aar aar askan beneen bi nag mooy dem beeg dikk bi aussi wax nañ chauffeur si parce que dañu defaale campagne aussi sécurité routière. ñu ngi lay santaat bu baax di la gërëm di rafetlu taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci dëkk bi muy loo xam ne itam jëkk na fii nga nekk ndax yàlla defal na la ndimbal tawféex ndax ku gaaw a xam mbir mi ku amul dal ci mbir mi waaye itam ku amoo cofeel ci Tuubaa te fonk ko la te loolu lu ma mën a seere la ndax li nga seere léegi rek lu ci ëpp ñoo ko daa ànd te ma xam sag dal ma xam sag mën a mun xam sag mën a dékku te loolu kilifa bu ne war na ko def ndax ku yor lu ñëpp bokk yor fu ñëpp soxla yooyu bu dajewul ci yow rek dana metti ci nit ñi te loolu gis naa ko ci yow loolu nit wax doo mer te dañ ci ànd ak fulla loolu rek di ko jooy dañ lay ñaar baax yàlla saxal la ci dimbale la ci ci mission bi fii nga nekk ba suñ borom gën la ci defal kàddu yi nga wax itam ak yéen yu rëy yi nga xam yi nga xam ne wax boo ko ci dëkk bi ci ndigalu sa kilifa président itam dégg nañ ko bu baax ndax dégg nañ li wax ci jëf yi nga àndaale ak li nga war a defaat ak li nga yéen loolu nag ci turu sëriñ bi faaw ñu rafetlu ko ndax sëriñ dëkk bi rek ay itam taalibe bi rek ay itam jaww bi rek ay itam kon bu fekkente ne lépp lu ngeen di xalaat yéen ngi ci jiital Touba ngir xam ne dëkk bi ni demee bu fi mbooloo dëkkutoon sax te muy dëkku Sëriñ Touba itam yeyoon na lu ne rawatina li fi dëkk ci nit kon bu Ndakaaru jàllee rek moo war a ci dëkk yi ndax li fi nekk kon nag xam xam ngeen ko xam ne ba gàttaluñ ci dañ li ci sant bu baax ndax xam bi kat ñëpp maçon ji def ko kon nag ki nga xam ne delloo na dëkk bi cër bi te xam ko waris na ko beral cantam ak ngërëm kon daal li nga xam ne ci turu sëriñ ci liñ mën a xam teew te mën koo seet mooy ak cant ak ngërëm ak ñaanal bu baax yàlla dimbali la mottali yéene ji mottalaay yéene ji jël si muy wàllu yoon yeeg kër yi yëpp nga xam ne eh, fu ne lañ ko soxlaa ci dëkk bi tam nekk ci sa loxo loolu itam ñu la ci gën a soññal bu baax lépp luñ ci gën a mën a yokk rek ñu def ko ba quartier yu sori yëpp yoon yi mën fa àgg kon daal ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaan bu baax mboolem naa yi nga xam ne am ngeen ak sumb yi suñu borom kattanal ak dëgëral la ndax li ma seere ci yow kat lu ma xam rek la.